est-ce que aliment yooyu dañ koy importer wala est-ce que aliment yëpp ci réew mi lañ ko def rek est-ce que c'est sûr que amul OGM en fait euh, euh, Sénégal euh, aliments bu ñuy utiliser yëpp fii lañ koy produire maintenant les matières premières muy euh, maïs bi oui. ak soja bi mhm. ak prémix yi dañ koy importer dañ koy importer dañ koy importer euh, aujourd'hui le Sénégal importe à peu près quatre cent cinquante mille tonnes de maïs chaque année ndeysaan pourtant euh, pourtant <laughs> les domaines agricoles communautaires loolu rek les domaines agricoles communautaires maa ngi fàttaliku benn jamono yaa euh, le le le boss de Sedima qui avait même euh, signé un contrat mhm. avec les domaines agricoles communautaires li ñu bàyyeegul sax waxoon na ni moom pare woon na pour jënd mais bi xam nga donc loolu loolu la culture du maïs moom c'est vraiment une niche d'emploi boo xam ne li mu mën a jël si si jeune mhm. ak ci jigéen c'est des milliers et des milliers Euh, programme boobu nga tudd léegi nii mooy programme mu agro c'est-à-dire benn industriel euh, mooy ñëw ne man dama soxla maïs. bien sûr avec de euh, termes de référence. lu ci mel ne humidité bi nga xam ne moom moo war a nekk ci mais bi. mën na apporter assistance technique. baykat bu nekk ba Saint-Louis wala bu nekk ba Guinaw Kolda. mun na ko apporter semence mun na ko apporter engrais et en retour lépp lu muy bay moom mu jënd ko. donc ay programme agro yoo xam ne boo demee Afrique de l'Est gaa ñu ngi ko fay def Mozambique gaa ñu ngi fay def bi jiw. ñoo ko jox jiw ma après ma jënd mu jël ko mais loolu il faut de la de la volonté politique pour def ko parce que aujourd'hui euh, Sénégal 450 000 tonnes de maïs euh, pour nga cultiver ko il faut minimum 90 000 100 000 hectares. 90 000 100 hectares 100 000 hectares à raison de 10 millions d'hectares c'est 900 milliards. Et donc et il faut de la. en devise en plus ah. ah oui, en devise du du du CFA. Euh, secteur agricole bi c'est mën na ne c'est une niche d'emploi boo xam ne dañ dañ ko dañ ko sobante dañ ko négligé mmh. mmh. dañ ko négligé l'autre mmh. question est-ce que on parle de produit halal est-ce que <laughs> yéen seen produit c'est halal pourvu que non on est des on est en majorité en majorité musulman mais on sait pas par yeah. quelle voie et moyens vous abattez vos poulets est-ce que yéen a ngi respecté yooyu parce que yeneen dëkk yi da ngay gis ay étagère ñu def fa même pour les œufs mhm. yi nga xamante ni c'est euh, c'est couvé wala normes yi mhm. prix yi ci prix day dépendre ci normes yi mhm. ganaar yi ñuy yar en plein air sax ñëpp xam nañ seen yàpp bokkul la ganaar bi ñuy yar euh, ci ci kii yooyu yëpp mais ñun Sénégal fii yooyu yëpp gisuñu ko dafa mel ni amul luy contrôler en deux types de ginaar yi ñuy dugg sa biir kër ginaar bi nga xam ne ci abattoir la jóge jóge ci ferme dem ci abattoir bi wala ginnaaw bi nga xam ne dafa jóge ci ferme bi jaax ci baanamaara bi. waaw baanamaara bi jullit la. baana baana sax moo gën a dal sama xel ma. mais abattoir yi tamit il respecte les normes. Mm-hmm. abattoir boo ci dem euh, buy rendi ci euh, norme xalal lay lay rende. Mm-hmm. abattoir Sénégal yëpp yi fi nekk bu ñuy rendi si norme xalal la ñuy rende donc ci côté boobu moom amul lu ñu ciy tiit